bokk ci li euh, yàq suñu wér-gu-yaram te mu ñeel wàllum environnement colonel maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay de Fatou di kontaan lool di ñëw ci sa plateau bi. Mhm. def naa ne tey dinañ waxtaan waxtaan bu am solo. Mhm. te bu amal njëriñ askan wi. waaw euh, ah. colonel daañu ko waxtaan waxtaan bu am solo ni ñu ko waxee parce que euh, li ma wax mooy dañuy waxtaane wàllum santé environnementale. Mhm. te bu ñu wax santé environnementale naka lañu ko mun comprendre. jërëjëf mi Fatou santé environnementale ci tënk. mun nañu wax ne mooy lépp loo xamante ne nii dugal nañ ko ci aalam bi te loolu mun a am jeexital ci wér-gu-yaramu doomu aadama loolu nag lu yaatu la ndax gis nga doomu aadama dafa lëkkaloo ak aalam bi mm-hmm. li ko wër environnement bi fi mu dëkkuwaayam cadre de vie bi mm-hmm. moo tax lépp loo xam ne nii dugg na ci loola te waru ci woon a dugg moo xam soit dana ko noyyi wala dana ko lekk wala dana dugg ci yaramam eh, jaare ko feneen te loolu ci gën a bëri mun na am jeexital ci guy bu yaramam mhm. moo tax ñuy wax toujours santé environnementale ndax soo dëkkee fu set fu sell mhm. loolu day am tax aussi nga am wér-gu-yaram boo xamante ne nii wér-gu-yaram bu ci ayib la mhm. moo tax nit ak environnement am dañu lëkkaloo. Mhm. ba nga xam ne lépp loo xamante ni mu ngi ëybal environnement bi rek. boo xoolee ba ci biir day am jeexital ci yow ci sa wér yaram euh, colonel je pense que ni nga ko définiree euh, moom tegu na bu baax comprendre nañ la léegi. Mhm. Euh, santé ak environnement benn mënul dem bàyyi sa morom. waaw benn mënul dem bàyyi sa morom de nag daanaka ñun pour ñu comprendre suñu environnement gis na ñun fi ñu taxaw ñu ngi dali foor tey euh, ñu ngi taxaw ci wetu bassin de rétention euh, li ñu wër am na ay kër ak wër ay dëkkuwaay euh, déjà bassin bi jàkkaarloog ay kër est-ce que loolu yëpp bokk na tamit ci li nga xam ne mën na am jeexital si wér gu yaramu nit ki waaw bu bu baax bu baax nay parce que boo xoolee nit ki fi mu dëkk léegi boo xoolee rek am na xet boo xam ne ni si ñun te xet boobu dafa soppeeku mhm. soppeeku boobu mooy am na lu ne si biir mhm. te loolu dañ koy noyyi mhm. buñ ko noyee mun na am jeexeetal ci ñun te boo xoolee bassin yi lu ci gën a bëri dañ ko defoon pour ndoxu taw bi ndoxu taw bi moo taxoon ñu def ko mais fii ay eaux usées lañ ci gis voilà boo ñëwee léegi rek boo xoolee ndoxu foos yi dañ fiy nekk waaye aussi Euh, huile huile huile vidanger yi. Mm, c'est ça huile yi nga xamante nii mu nga jógee soit ci yi mm-hmm. wala yooyu. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu yëpp ay xeetu mbalit la yoo xamante ne nii euh, bu yàggee fenn dafay soppeeku. te loolu dafay ànd xeet xeet boobu nag am na luy nekk si biir loo xamante ne nii baaxul ñu ci suñu baaxul ci suñu wér-gu-yaram. te euh, lu ci gën a bëri xeet yooyu uil bi. dafay ànd ak ay ay ay ay ay xeetu ferñeent wala ay xeetu loo xamante ne nii ay weñ lay doon yoo xam ne nii même doo ko gis nii sax waaye weñ la ci consultant bi mm-hmm. euh, mooy li ñuy wax plomb mm-hmm. parfois da ngay gis euh, ay mbalit yoo xam ne nii dafay am plomb mm-hmm. wala mu am mercure parce que euh, yooyu yëpp day am jeexital ci wér-gu-yaram te jeexital bi jeexital yu doy waar lu ci gën a bëri Euh, mu nit bu ëmbee sax yooyu mun na dem ba fekk euh, euh, mara détail yi xale bi ci biir yaayam sax mun na am jeexital ci hmm. kon nit ki li muy noyyi ci environnement dina am jeexital bu baax ba ci sax jigéen bu jigéen bu ëmb bi. parce que jigéen bu ëmb bi. parce jëlee ay métaux lourds. waaw comme le mercure par exemple. waaw mercure bi wala plomb bi. dañuy gis ne yooyu. mun na am nit ki bu fekkee ne nekk na en contact moom moo xam war na na ko wala dem na ba dugg ci deretam mhm. euh, lor euh, lor xale bi nekk si biiram mhm. waaw da ngay gis ñoo xam ne ni dañu am euh, retard maanaam seen xel ñaw lool mhm. voilà dañuy am retard ci am xel mu ñaw wala nga gis ay comportement yoo xam ne ni comportement yoo xam ne ni ñu normalul la ci xam nga loolu musiba la. musiba la mais loolu dañ koy gis très souvent si comme ay zone yu mel nii. parce que je me na lu mel ne quartier Ngagne Diaw. amon nañ problème mu plomb boobu y avait des eh. enfants yoo xam ne ñu gis ay maladies. yu doon développé seen peau. ay maladies respiratoires. yooyu c'est lié à l'environnement. waaw ah, à l'environnement parce que foofu boo jëlee foofu li ñu doon def mooy jël lu mel ni batterie. waaw batterie oto. Mm. xam nga yooyu dafa am ay yu def yoo xamante ni. Mm-hmm. bu la affecté rek. mën na am ay ay ay gàllankoor. exact gis ngañ jaww la fa xewoon xam nga loolu musiba la. waaw yooyu yëpp nag euh, bokk na ci li ñuy jéem li projet bi di jéem a pour waxtaan ci ak nit ñi pour seen xel mun a màcc ci loolu ñu xam ne. yéen ministère de de de l' environnement da ngeen di yëngu ci ci da ngeen am politique bu ngeen teg. par exemple pour xeex. Euh, xeetu polluant yooyu maanaam yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci lu ñu wër ci suñu environnement. te di ko yàq waa li ñuy wax par exemple les polluants organiques persistants. waaw bi boo xoolee ministère de l' environnement du développement durable et hmm. euh, dafa am benn direction bu wax direction de l' environnement et des établissements classés. waaw moom. dafay jéem a fexe ba vraiment lépp luy pollution ñu wàññi ko boo xamante ne nii du am jeexital ci wér-gu-yaramu doomu aadama euh, tey ñu jëm ci xeex li ñuy wax polluants organiques persistants ay xeetu tooke la yoo xamante ne nii mhm. euh, pour mu pour mu nëpp wala mu mu mu jóge fi lu lu yàgg doon mais tooke yooyu si fan lañ koy si yan tooke yi par exemple boo xoolee lan ci suñu environnement mooy am xeetu tooke yooyu. ah par exemple boo xoolee par exemple euh, kii nu mu tuddati xam nga nit ki buy bay. waaw. Ah. day utiliser ay xeetu tooke yoo xam ne nii pour dàq lépp luy lekk meññeent bi la ak yenn xeex yenn xeexu yenn feebar yi. exactement. Euh, pesticides yooyu euh, lu ci gën a bëri. dafay ànd dafa am ay am na yoo xam ne dafa am ay polluants organiques persistants. Mm-hmm. te dafay des li ngay bay. li ngay bay nga génn ko jox ko askan bi mu lekk ko askan mu lekk ko. Mm-hmm. yow mi ngi itam miy def traitement bi yow itam mun na la impacter. exactement gis nga ko euh, boo jëlee mbalit aussi mbalit. Mm-hmm. nga lakk ko yaa xam mbalit mi am na lu mel ni plastique. plastique aussi bokk na ci li génnee xeetu dooke yooyu. d'accord day gis jigéen ñoo xamante nii. pour ñu boyal seen boyal seen euh, fourneau dañuy jël euh, plastique ñu lakk ko. pour di ko boyale waaw. waaw te loolu li muy dégagé. Uh-huh. loolu musiba la. musiba la waaw kon jaar ñu bàyyi sa xel. loolu yëpp ay yoo xamante ne nii bu duggee sa yaram pour mu génn ci lu jafe la. Uh-huh. te plus nga koy def moom yaram yi mënu ko génnee day day day lu ñëw rek day fekk leneen. dañoo fekk leneen li dañoo fekk muy gën a bëri ci sa yaram. Mhm. te plus muy gën a bëri ci sa yaram plus muy dugg ci yenn dugg ci sa yaram di la lor mun a dem a dem a dem a dem a dem nag ba andil la ay jàngoro yoo xamante ne nii ay jàngoro yu chronique la jàngoro yoo xamante ne nii euh, mara d' italie day day lor doomu aadama. d'accord moo tax euh, euh, dañuy def tout pour que. jéem a yee nit ñi ci ni ñuy saytoo mbalit. parce bi bokk na ci li nga xam ne ci environnement bi moo gën a bëri moom moom moom mu la placé ma am contact direct on a un contact direct avec les déchets te déchets yooyu ñu ko bu ñu ko buñ si liggéeyul comme yéen par exemple liggéey bi ngeen siy def dina am jeex jeexital bu day waar su wér-gu-yaram askan bi dëgg la waaw euh, dañuy fexe ba euh, mbalit mi ñu bañ ko di lakk wala ñu parce que mbalit fu mu bëri rek lu ci gën a bëri lii nii seen xalaat yëpp mooy ñu lakk ko. Mhm. te buñ ko lakkee xeetu projet yooyu may wax ci lay jógee. d'accord moo tax boo xoolee dañuy jéem a xool bay def ay PRN point de regroupement normalisé parce que nit ñi parfois yow da ngay am sa mbalit sa biir kër mais bu la oto bi rawee rek doo xam mooy def mbalit da ngay xaar ba guddi nga yor teg ko fenn keneen def noonu keneen def noonu foofu mbalit ñi di dajaloo nekk benn dépotoir boo xamante ne nii lu ci gën a bari dañ koy lakk buñ buñ bëggee wu. lakk boobu nag mooy indi musiba bi. non seulement day polluer environnement bi sax day polluer air bi. day polluer donc loolu ay jafe-jafe la. nga gis aussi yeneen yoo xamante ni nii li muy jógee mooy usines yi boo xoolee fii ci Dalifort ak Hann Bel-Air am nga usines yu bëri côté yi la nekk. Mhm. usines yooyu aussi. moo xam lépp lu ñuy defar lu ci gën a bëri day am ay xeetu saxaar yu ñuy sànni ko mhm, mhm. wala ay xeetu ndox yoo xam ne nii ndox yoo xamante ni nii parfois mun na am ay tooke ñu sànni ko soit ci géej gi wala yooyu boo demee si booru géej gi fii ci bi ñoom ñu muy trouvé mhm. donc euh, waaw moom beneen affaire la beneen affaire la te bee bi bokk na ci zone bi nga xam ne ci suñu environnement dafa bëri ay polluants organiques persistants léegi nag polluants organiques yooyu nag parfois bu demee si géej gi ko jën bi lekkee du rees bu génn ci jën bi mhm. yow boo jëndee jën boobu da nga koy lekk nga lekkaale ko yow exactement kon jóge na ci jën bi ñëw na ci yow te nag day gën a bari ndax plus nga koy gën a lekk plus muy gën a nekk yow ci sa biir tooke boobu tooke boobu di gën a nekk ci sa biir plus nga koy lekk plus gën a nekk ci sa biir te lu yàgg la mun na mun na durer lu yàgg te sa yow sa sa sa yaram mënu koo éliminer mënu koo génnee munu koo def dara. mais euh, yéen si seen euh, li ngeen di liggéey ministère de l' environnement ngir xeex polluants organiques persistants yi nga xam ne si suñu environnement la nekk te muy indi yenn jàngoro. Euh, askan bi déjà ñoom xam nga lu mel na par exemple kër yi munoo leen fi jële ñoom ñu ngi jàkkaarloog un environnement malsain yeneen euh, yenn communes yi comme Dalifort yu si bëri si euh, li leen wër industrialisation bi indi na aussi problème mais dans ce cas yéen ban yan action ngeen di def ngir mën a limiter les dégâts sanitaires yi nga xam ne ñoom ñooy jógee si suñu environnement loolu vraiment question bu am solo la waaw parce que dafa lañuy def ba loolu wàññeeku ba vraiment du lor doomu aadama. waaw li ci njëkk mooy ñu fexe ba mbalit mu ñuy woon ñu saytu ko saytuwuñ boo xamante ne nii duñ ko lakk. ok mooy mooy point de regroupement normalisé yi ma la woon léegi ndax yooyu mun nañ ko dajale mbalit mi nga xamante ne nii même bu la oto bi rawee mun nga ko fa yóbbu oto bi heure bu ñëwee dajale mbalit mi yëpp jël ko yóbbu ko fu nga xam ne nii foofu nañ ko war a foofu lañ ko war a euh, tuur. ok. loolu benn la beneen bi aussi mooy ñu fexe ba xam nga fii tey boo xoolee ndox yi ñu fiy tuur nga xam ne ni ndox foos la ay nit a ko fi def. loolu aussi war nañu waxtaan ak ñoom xamal leen danger yi nekk ci loolu ba ñu ñu bàyyi ko waaye utal leen aussi alternative. ah lépp li nga xam ne ni mooy huile yi tuur ak yooyu aussi ñu dem waxtaan ak ñi nga xamante ni mooy mécanicien yeeg ñu xool ba xam. Mhm. parce que huile yooyu mun nañ ko saytu saytu boo xamante ni nii duñu lor. te dinañ ci sax am dara as wéccet. d'accord bu ñu demoon di ko organiser collecte bi am na ñoo xamante ni tey boo leen ko yóbboo ñoom mun nañu régénérer huile mu dundalaat huile bi sax bañ ñu mun ko jëriñoo waat te du lor doomu aadama. d'accord donc yooyu aussi ñi nga xamante ni aussi mooy usines yeeg yooyu. Mhm. dem di waxtaan ak ñoom di xool ndax am na ay jumtuwaay yoo xamante ni nii mën na wàññi saxaar wala mun na segg saxaar. ba nga mhm. xamante ni nii liy génn sax mun na bañ a am yenn jeexital yi. Mhm. Mhm. am na aussi lu ñuy wax les les les les bonnes pratiques ay guides yoo xam ne bonnes pratiques yoo xam ne nii liggéey bi am na noo koy tëralee wala am na ay matière premières yoo xam ne nii boo ko utiliser peut-être li ngay sànni ci saxaar. wala ci ndox moo xam ne ndox mu mu yàqu la mu xasit mhm, la mhm. loolu mun na bañ a am jeexital bu bu garaaw ci doomu aadama yi mhm. donc loolu moo tax dañ def cartographie des acteurs ku ci nekk ñu xool yow lan moo ci sa wàll ci sa wàll loolu ñu ci sa wàll nag ñu jéem a xool naka lañuy ñuy def ba waxtaan ci ak yow ba lépp lu ciy loraate ñu mun ko ci génnee te yow nga ànd ci ak ñun. d'accord parce que lu ci gën a bëri aussi nit ñi parfois dañuy ragal a ñëw wala xool ku nekk daal yaa ngi def loo xam ne ni yow sax xam nga ne du noonu waaye nag doo ko bëgg a fësal parce que da ngay bañ euh, ñu wax la dara. Mm-hmm. mais léegi nag dañuy dañuy def tout pour que ñu ñu dal ay ëttu waxtaan. mais loolu moom je pense que municipalité aussi am nañ si rôle bu ngande après daañu waxtaan ak mairie maire bu Dalifort bi parce que interpellé nañ ko après si loolu parce que ñoom tamit bokk na Dalifort bokk na si zone yi gën a pollué xam naa vous avez beaucoup de travail à faire moom exactement loolu aussi parce que moo tax boo xoolee sa projet bu ñëwee ñun mairie bi moo ñu dalal hmm. ndax euh, suñu personnel bi ñuy andi sax dañ ko andi ci mairie bi ndax il faut ñu moom pour que moom it mu mun ñu dimbale. Mhm. ñu jote ci population bi. Mhm. moom itam puisque moom population yi moom ko fi teg pour mu liggéeyal leen pour que mu mun leen yee ci yu bari yoo xamante ne nii buñ ci àndandoo lëkkaloo ci dinañ mun a am liggéey boo xam ne nii liggéey bu mucc. waaw mais est-ce que am ngeen euh, benn objectif wala par exemple benn benn deadline wala benn délai fii ay at ngeen ah. yaakaar ne peut-être suñu environnement. Euh, dina am jeexital bu gën a oyof ci suñu wér gi yaram ci si li ngeen di liggéey euh, est-ce que mën nañu xam kañ kañ par exemple la ñu mën a gis un meilleur environnement bu lëkkaloog une meilleure santé fii ni ñu par exemple boo xoolee ñun projet bi ñu yoree bëgg nañ daal fii ba 2005 di jeex ñu amélioré vraiment 2025 2025 pardon 2025 ah. damaa juum fii ak 2025 di jeex ak liggéey yi ñu jot a def fii yëpp maanaam peere ni ñu fi def yi normalement war nañu dem vers aménagement aménagement yenn bassin yi war nañ fexe ba fépp fu dépotoir am fii maanaam suñuy sànni mbalit nekk yoon ñu fexe ba jël mbalit mooma bu ñu jëlee mbalit mi aussi ñu fexe ba def benn site boo xam ne dañ koy aménager mhm. parce que aussi gis nga mbalit li koy andi lu ci gën a bëri mooy foo xam ne nii defuñu fa dara. defuñu fa dara mais boo ko aménager ba mu rafet nga def fa ay garab def euh, un peu de gazon nit mun fa toog. di wér a respirer air pur mën a respirer air pur dañuy gis foofu kenn du fa tànni mbalit. donc loolu aussi ñu ngi koy jéem dawal ci biir euh, commune bi. Mhm. fexe ba donc exposition populaire maanaam population yi ñi nga xam ne nii euh, maanaam pression bi am ci polluants yooyu. ñu mën a wàññeeku ci population bi ba ñu ngi koy yëg ñoom seen wér gu yaram. d'accord ak seen wér gu yaramu doom. d'accord ndax aussi xale yi nag. surtout les enfants ñoom voilà ñoom ñoo gën a fragile. Mhm. li leen di dal. daf leen di topp ba ba ba ñuy ba ba ñuy màggal. exactement te li ci gën a bëri day am jeexital ci seen ci seen xel. d'accord te xam nga ne xel moom. mooy koom bi gën donc loolu moom de ak waxtaan bi ñu am vraiment colonel tax na ñu natt. danger euh, sanitaire yi nga xam ne am na si vraiment lu ñu wër. bon en tout cas vous avez beaucoup de travail à faire ministère de l'environnement parce que. Euh, daanaka daanaka docteur sax dañuy xayma ne. lu ëpp 50 euh, pour cent mën nañu wax ba 80 pour cent maladies yi ñu am. c'est lié à notre environnement. kon yéen ak ministère de la santé seen liggéey parce que dañu nekk sax si jamonoy one health comme on dit. boussole santé waa loolu dafa laaj euh, ministère de l'environnement ak yéen waa wër gu te nit ñi tam ñu bàyyi xel si li leen wër niñ koy gérer peut-être ce dernier kaddu laataa ñuy interpeller le maire parce que ñoom tamit ils ont beaucoup ils sont beaucoup interpellés si côté boobu message bi ngay jox askan bi vraiment pour que ñu gën a am wér bu ñu wër boo xamante ne dafa lëkkaloo ak suñu environnement xanaa rek di kontaan ci vraiment sa émission bu nga xam ne bu am solo la mhm. Euh, vraiment ci saytu wér yaram yi. Mhm. parce que lu gën a bëri li gën a bëri ci euh, loo xam ne tawat lay doon. Mhm. lu ci gën a bëri am na loo xam ne ni suñu comportement lay. c'est ça c'est moo tax may wax population bi rek ne leen li gën a bëri luy gàllankoor suñu wér yaram boo xoolee ba ci biir. lu ci gën a bëri ci ñun la. ci ñun la suñu comportement exactement kon comportement boobu bu changé rek. Mhm. lu bëri mën naa changé. parce que bu ñu éviter yenn yenn xeetu tawat yi. Mhm. xoolal xaalis bi ñu ciy def. Mhm. ñun ñu ko ciy def nguur gi di ko si def. ak te prévention bay gën a yomb. prévention bi moo gën a yomb te boo xasee ba feebar dootoo mën a liggéey. exactement ah say njaboot duñu duñ la mën a am ak yow mbégte. ku di la mhm. gis nga am sa wér-gu-yaram. bëgg def lu bari duñ mën a def. exactement parce que wér-gu-yaram moom moom mooy valeur bu njëkk ku ko am. daanaka ñàkkuloo dara mhm. waaye ku ko ñàkk aussi amatoo dara mhm. kon nag ñu góorgóorlu bu baax ci comportement yooyu ñu fexe ba ñoŋal ko. Uh-huh. ba nga xamante ni dinañ mën a prévoir maanaam dinañ mën a fexe ba euh, ay tawat yu bëree bëree bëree bëri. Uh-huh, uh-huh. fexe ba éviter ko. donc loolu daal moo nekkoon sama lenn di la sant bu baax di gërëm nag. jërëjëf colonel gërëm yow tam ñu lay gërëm vraiment ci disponibilité bi. may fàttali yow colonel Alassane Ngom euh, yaa environnementaliste nga nga nekk ministère de l' mais ngeen yor euh, liggéey bu am solo di xeex li ñuy woowee polluant organique persistant mooy maanaam xeetu tooke yi nga xam ne euh, ñi ngi nekk ci suñu environnement ci suñu jëfin te dafay yàgg bu duggee ba xase ba dugg sa yaram dafay yàgg di indi jàngoro yu doy waar yoo xamante ne mun na lor doomu aadama ñu lay gërëm di sant te di ñaanal tam li ngeen kàddu yi nga xamante ne koy jëmale askan bi ñoom ñu dégg ko te lépp ngir wér gu la jërë ngeen ah, ñu ngi ci ginnaaw bassin bi nga xam ne moo nekk fi euh, sorewul dara euh, ci mairie bi nekk fi Dalifort ñuy waxtaanee santé environnementale te xam nga wér-gu-yaram dafa bokk ci euh, compétence yi ñu transféré commune yi te ñoom tamit dañu war a def liggéey bu am solo seen environnement te commune Dalifort bokk na ci commune yi gën a pollué ndax industrialisation usines yi ko wër ci loolu nag nag ñu interpellé maire bi bu ko defee ñoom ñu wax ñu ndax am na liggéey ñuy jëmale ko ci askan bi ngir gën a ñoŋal seen wàllu wér-gu-yaram comme ni ma leen ko waxee maa ngi taxaw ak euh, ki nga xam ne moom mooy yor kàddu maire bi euh, fii ci wax ak moom muy Abdou Diouf euh, Baye Fall nga nekk deuxième adjoint au maire monsieur Diouf maa ngi lay nuyu voilà gannaaw bi ma la nuyoo comme ni ma ko waxee ñun fi ñu taxaw mooy bassin bu Dalifort bi Dalifort bokk na ci commune yi nga xam ne daanaka moo gën a polluer ndax usines yi fi nekk ak ak environnement bi vraiment mu am lu fi des loo xamante ne dem am jeexital si wàllu wér-gu-yaram si tënk rek yéen est-ce que am na ay politique boo xam ne maire bi teral ngeen ko ngir euh, gën a ñoŋal wér-gu-yaramu nit nit nit ñi ak euh, par rapport ak environnement bi ñu dëkkee nii. parce que léegi rek bi ñu taxawee am na benn euh, habitant ku bokk dal foo naan leen par exemple kii bi daf ñoo solon xet bi nekk fii parce que loolu euh, moo tax moo waral sax li ñuy waxtaan loolu la xet bi nga xamante ne moom mooy jógee ci lu mel ne bassin yi ak yeneen yi pollué fii yéen loolu est-ce que vraiment yaakaar ngeen ne liggéey bu ngeen mën a taxaw la pour def boo xam ne la liggéey bu yaatu la bu bu bu demandé l'ensemble des ensuite euh, quand on recevait le projet bokkoon na ci condition yi ñu waxtaanoon ak waa PVC quoi. parce que projet pour la santé environnementale et la pollution de l'eau. waaw le fait que Dalifort bénéficier ko amul lakk ay bassin la ñu am. Mm-hmm. yi vous savez jeunesse bi mooy fii école la woon. Mm-hmm. école moo nekkoon fii parce que municipalité à l' bi inondation yi ñëwee euh, askan wi nekk ci ay jafe-jafe avec l' état du Sénégal ñu mujj créer fi benn bassin pour soulager askan wi. bu mu ñëwee léegi nag gisaat nañ njeexital yi mu def parce que saafara gu jur loraange. saafara gu jur jàngoro parce que ni zone xam ne mooy Daaru Salaam ak li ko wër yëpp jooy ci ba sonn ñu nit euh, def nañ ci ay rencontre à maintes mhm. le ministère des inondations ñëw na fii le ministère de l'environnement ñëw na fii préfet les autorités déconcentrées ñoom ñëpp ñëw nañ fi visite ñu wax leen aussi jafe-jafe yi nga xam ne moom lay posé si askan bi mhm. ñoom it xam nga comme Sénégal administration bi dafay yéex ci yenn kii procédure mais man j'étais témoin j'étais là ak le maire ak le PGCL ba ak les bàjjenu gox les relais communautaires les délégués de quartier ñoom ñëpp ñu ñëwee ñu def fii atelier waxtaan ak ñoom xamal leen aussi soxlan nañ des solutions efficaces des mhm. solutions yoo xam ne rapide yoo xam ne moo d'urgence yoo xam ne dañ mën a jàppale askan wi. parce que li mhm. ñu leen di posé ci ay jàngoro bari na. bari na. Mhm. am nañ jafe-jafe nooyi. Mhm. am nañ jafe-jafe sax dëkkin bi dafa commencé am ay ay exactement parce ñuy respirer nekkul de l'air fii gis li nga xam ne des fois dañ ciy déverser yenn affaire yi. parce que askan boo ci bokkee da nga war a contribuer positivement. ci li nga mhm. xam ne moo koy jëmale kanam. Mhm. Mhm. mais bu fekkee ñun dañuy def ay effort ñu di di woo état bi di woo tous les services déconcentrés. ñoom it ñu di ci jéem a trouver solution. ñun askan wi en en retour ñu ñëwaat di ci yokkaat yeneen jafe-jafe. day day mel ni kon am na ñoo xam ne li ñuy daw ñun. moom dese nañ koo comprendre. dëgg la kon je pense que loolu lu am sant nañ leen. mais li ngeen di gën a ñaax mooy nga xool yan solution dañ ñu mën a apporter parce que lii xam nga ça dépasse largement les compétences de la mairie c'est ça mais n'empêche que comme ñun dañu fal pour ñoom pour askan bi fépp fu ñu mën a amee di trouver solution rek mhm. ñu ngi ciy daw bu dégg bëccëg parce que man dem naa fi réunion préfecture def maire envoyé dama fu ne ba sali sax dem naa fa réunion 72 heures mhm. ñu wax kon nekk na lu ñu ñor nekk na lu ñu yitteel parce que loolu moo tax ñu fal jusqu'à présent gis nga ñoom gisul alerté waat ñaanal ñi nga xam ne ñoo ŋànk projet yi yi. Mhm. ñu gën ñu ko wax askan wi d'accord donc ma lay gërëm euh, Lamine Diouf yow ma fàttali Abdou Diouf Abdou Diouf plutôt yow yaay deuxième adjoint au maire euh, comme ni nga ko tontoo yéen euh, environnement bokk na seen compétence santé bokk na seen compétence. te Dalifort bokk na si communes yi nga xam ne vraiment euh, seen population dañuy jooy pollution boo xam ne bu doy waar la mais j'espère que ak ni nga ko waxee dina am yenn jéego yuy tegu bu ko defee wér-gu-yaramu askan bi ci yenn communes yu mel nii euh, mu gën a doy mu gën a jëm kanam ma lay gërëm di la sant voilà jërëjëf voilà mbokk yi loolu nag moo doon tey seen émission la santé avant tout ñu doon waxtaanee wàllum santé environnementale gis ngeen li fi colonel Alassane Ngom wax léegi jëm ci solo bi nga xamante ne suñu environnement am na ko euh, ak ñuy agir suñu wàllu wér yaram ak tamit xeex li nga xamante ne moom mooy polluant organique persistant kon euh, lépp loo xamante ne soxal na suñu wàllu wér-gu-yaram war nañ koy sóoraale mais sóoraale tam suñu ay comportement comme ni ko colonel waxee ndax euh, lu bëri li nga xam ne moo ñuy indil feebar si suñu environnement lay jóge ak suñu wàllu comportement ma yaakaar nag ni li ñu fi wax yëpp jëriñ na leen ma leen di gërëm di leen sant ñoon jox daje nag ba yeneen ay bés sen euh, beneen numéro seen émission la santé avant tout sur la 7TV jërë ngeen jëf